bi ñu yegsee si hôpital bi li xew mooy euh, dañu def urgence bi mooy dóor bi ñu ko dóor ci ci euh, kar kanam ak yooyu yëpp ñu faj ko bi ñu ko fajee ba pare ñu gis leneen parce que dañ ko defar échographie biir bi mu gis que ne am na lu fa xew ndaxte soxna si dafa dafa euh, ëmb dafa ëmb ëmb boo xam ne matugul ñettiweer ku xam ëmb bu matugul ñetti weer xam ne euh, amagul stabilité c'est-à-dire doom bi stable gul bi ñuy defee éco bi ñu gis ne am na am na lu doy waar ñu yóbbu ko rapidement ci euh, maternité bi hospitalisé nañ ko foofu mais fim mu ne nii situation bi ñu gis situation bu doy waar la parce que euh, soxna si mun na ñàkk ñàkk bi loolu moom moo xew tey chaque jour nag mi ngi mi ngi sous traitement am traitement yu ñuy def ay